صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر ربي بما يسراه العسى نخات فجاء بجاي أفضل من لله قد لجاء ربي بما يزراه الأذان قد فجاء بجاي أفضل من لله قد tant bi daawul toll nii nit ñi daawuñu toll nii moom bi daawul tooge nii mu toog foo gis mbooloo fu mu mën a doon mbooloom sëñ Béthio la kon bu mbooloo nekk fii nekk fee mën si nañoo xalaate lool waaye boo boolee mbooloo yëpp mbooloom sëñ Béthio moo mbooloom mooy mbooloom ñëpp fu mbooloo mën na nekk mbooloom sëñ Béthio kon nit ñi nañuy moytu fu mbooloom mën na nekk rek mbooloom sëñ Béthio man jàpp ma vidd te it gisuma vidd li ko waral mooy li mënul ñàkk faw day am te ñun ñëpp sëriñ bi def ñu cee prépare woon ndax lu mënul woon a ñàkk la te lu mënul ñàkk faw day am sëriñ bi waajaloon nanu ci ginnaawam loon nanu ngir nu xam ne lii mënul ñàkk ndax lu fi wul bàyyiwul yonent bi bàyyiwu fi Ahmadou borom nit ñi bàyyiwu fi Cheikh Saliou borom jamono du fi bàyyi seex Béthio kon ñun pare woon nañu psychologiquement ci xam ne màggal dana jot ñu màggal sans Cheikh Béthio dañ doon ñaan yàlla kañ mu yéex lool waaye xamoon nañ ne bis bi mënta ñàkk الملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبي yoonu yàlla moo mel noonu mais li am solo mooy taalibe bi suñ bekk neen ab taalibe day am ràññee taalibe day mën a ràññee boo ràññee wa a dugal la ci gutta te li yoonu yàlla la du ay caaxaan du ay foo yàlla daf ñoo sàkk ni ñu jaamu ko pour am ngërëmam te am ngërëmal yàlla am ngërëmal sëriñ Saaliw Mbàkke mooy am ngërëmal yàlla ñu dañoo topp sëriñ ba sëriñ bi gërëm ñu te ngërëm loolu sëriñ Béthio moo ñu ko may bu doon sëriñ Béthio duñu sax jege sëriñ Saaliw ba di ko liggéeyal dañoo leer ni sëriñ bi suñu topp la woon ab jënax sax moom la ñuy topp suñu topp ngootoot moom la ñuy topp li gën a tuuti ci mbindeef yi dinañ ko ànd moom ñun moom ci ndigal rek la ñuy wéy sëriñ Béthio moo ñu digal ñu ànd ak soxna si dañuy ànd ak soxna si ba wax leneen waaw ñun sëriñ bi moo ñu digal ñu ànd ak soxna si kon donc soxna si la ñuy àndal digal naa leen ngeen ànd ak soxna Aida waaw euh, def naa ko muy sama jëm euh, kon donc ñun su ñu ànd soxna si moom la ñuy déglu ñun amuñu lu ñuy tànn wala lu ñuy tàmm wala lu ñuy wax moom la ñuy déglu moom su su defee leneen it ñun ci loolu la ñuy ànd ndax ñun ndigal la ñuy wéyee ndigal li mooy sëñ Béthio moo ñu jox ndigal ndax kat si moom lañu ñu addina ak alaxira la ma ko waxoon madinatu salaam moom laa leen di waxaat fii mooy dama ne ko tegal sa tànk ci lislaam te bul ges ñun nag xàmmee nañ fu dara nekk ak fu dara nekkul ndax màggal gii de man sëñ Muntaxa rek moo mën a moom nag dafa defal sama ay taalibe teranga ñu jël seeni kaa dajale ko fay ko jiital ma ne ma nañu dem ñu njukkal soxna Ayda alxuraan laa ko war a siyaaree nii ci taalibe ak ay xasida taalibe bu ne benn xasida laal sas muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett lam dimbalee taalibe yi nag damay feesal réew mi daal ne man de la ma daan jënd daral di ko dajale ay mille francs jox na ma ci ñaari nag ren. ku ne koo àndal fu mu jëlee ñun bu war nañu seen béykat moom. mom lañu andal, mom lañu gëm bàyyi na fi njabotam sëriñ bi joxe na ndigal ngeen yee tiaw ku ne xam na ni ndaw njabootam bi ñu ngeen di jëmbal di len teewal di and ak ñom ci liggéey ñu dal keneen nak ku jaar feneen tu libre dëgg yalla nañ la bayyi rek wa xëy na am na sax ñu def ko ñoko xam wa ñu dal ñu ci liggéey ni nii ñu ngi ci liggéey nak wa waaw xol ñu keneen lu ñu keneen ki mooy sëñ beto sëñ boo ci beto moko ne yaay man maay yow ki mooy sëñ beto xoolal rek liku yalla may du ko def ñi màggal gi bari na lool dem nga fepp waaye bi ne fii amul feneen fii kenn jotewul ñun sëñ Béthio rek la ñu gëm lu mu nu wax rek loolu la ñuy def c'est que mooy sëñ Béthio loolu donc kese li nekk si moom moo nekkoon cheikh bi cheikh bi lépp lu mu amoon rek def na ko si moom muy tabe bi muy baax bi muy yëg doomu aadama bëggul kenn xiif bëggul kenn mar lépp lu mu am rek sëriñ Saliou ko gënal. bon nda soxna Aida day dem kenn du ko téye si kaw si kanam rek bu soobee yàlla billaay wallaay day gën a yokk rek. sëñ Béthio lii muy def da ak cant moom nag Serigne Saliou moo ko newoon ak cant fek demul ba mel ni da ngay damu santoo na nee na cant ak damu nee na mëneesu leen a ràññale te loolu lépp sant yàlla rek la ci jublu lii lépp sant yàlla rek sant la Serigne Touba bisam bii nga xam ne da ko woote woon. ca moom ba ko sëriñ Serigne Saliou digalee ba tey mu di ci doxee noo xam ne ni at mu jot da ngay jàpp ne mii moo raw bi weesu loolu lañuy wax naan sëñ Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la bés bi tey nag ñu defee ko fii ci Ngaabu waaw ñu defee ko fii ci Ngaabu ñëpp xam ne dañ ko daan def jannatu tey sëriñ bi boole ñoog soxna ay da ñu ànd ak moom cant gi ànd ak moom màggal sëriñ Touba gi defee ko fii ci Ngaabu euh, ci bég tey béglee tey nag ngeen fekkee ndékki li waaw mu mel nii tey ni mu mel waaw. noonu daal lañ ko lañ lañ tàmbalee ci célébration bi. bu ñu sëriñ bi booleeg soxna Aida ci ndigalam ñun yoon la bu fekkoon jànnatu lañ ko doon defee moom lañ ñu sëriñ bi booleel mu oote ko fii nii kon dañuy ñëw ànd ak moom cant gi dañuy ñëw ànd ak moom màggal gi ñëw defee ko fii nga xamante ni mooy ah, ngaabu di ci bëgg. ci ànd gi ñu ànd ak mom ndax teguñu ñu dul ci liggéeyal Serigne Touba. liggéey bi ben liggéey la du ñaari liggéey du ñetti liggéey du fukki liggéey ak ñaar ben liggéey la moy jëfe ndigal topp sunna sunna moy ku sa baay dee sa dooma lay doon ku sa taaw lay doon ndigal li moy sëñ Mountakha Mbacké nee ñun wa kër Cheikh Béthio noonu and ak sëñ Saliou Gueye Tapé top ko te yeggali mission bi mission bi kon tay li défar yomna ndax leeral nañu ko te teg nañu ci aw yoon képp ku bëggul defar nag newal ci leneen waaye ku bëgg defar di nga nekk sunna nekk ci ndigalu Sëriñ Muntaxa Mbàkke ndax moo fi Sëriñ wa watar xamil xalxaya man jaadum badaa ya malika mulkiya man jallal xawadil ارحم جميع الورى صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على هم مع الحس والسفر